la Fanta day tëggaat tey ci guddi wala day ànd ak jëkkëram soirée. waaw xam nga man nag tubarkalla macha allah. Mhm. Euh, caat mi ngi ci ay bagage am maa ngi ci samay bagage waaye nag fu ñu war a ànd it terewul dañuy ànd. dem fa. Mhm. suba incha allah ñu ngi ravin. ci kàttanu yàlla non non sur lendemain astaghfirullah sur lendemain ginnaaw suba. waaw ñu ngi ravin. woo xale yëpp rek comme niñ ko daan defee daal. booy caali day ñëw sax. ngoy sama rakk ji damay ñëw damay ñëw. ngore gay sama rakk ji. tubaarkàlla macha allah moom it ma nga ca biir. chéri Ousmane Camara. sama rakk xam ne amul façon réew. <laughs> borom bees xeen ku baax. nii la ma def tey barki démboo Njaay bi ma ñëwee ci moom. Mm. daf maa def ba mu mel ni jàmm. wallaay dëgg la tubaarkàlla waaye yaay yaayam te baax rek la mën a def. madame Camara loo ñuy may ci acapella macha jëkk mooy nangu jël sama mbayaan angoy maa ngi ziar waa Sénégal maa ngi leen di déwénate maa ngi leen di nuyu ah jërë mi ci mbéy saxe mi ci làmbaay giteeg ma moori taw ma moori ma moori ma doon naa koy sama maama bàkkoon dameel toj peey boole ga dab sàll wer ga jang-jangee yóbbu nga ngeel ma njaay pend joojo mi ci gàññool dee biram anta njaay ma njaay jamaak ma njaay mi ci tuube xar yàlla biraanay sama maam ye mu góoray sama maam fasaala si géejeey mar ko de birat njaay tuube ba mi njaayey sama yaay galas mbay mi ni jooyey sama baay ndaa naan la ajaratu ngoy mbay maa ngi makk xale bu baax yan ma daaru si ni caam nag maa ñongo men njegewu xadi caam sama rakk ji jigéenu njuga caam jigéenu demba caam mbokku yaayam ayda baabel xadi caam laayoo sama rakk jaa nii ma mel moom laa xadi baabel tëgg ndawul maar di bolam yi la ko tontoo sama law bi xar yàllaay seen maam dafa tëggal buur tugalee lay la laab ma way ngoy nii laa nuyoo yaay ngoree nii laa nuyoo Mamadou Mbaye Garmi. ñuy ku ne xam na ni tey jot bariwul. dëgg la macha allah guddi na. waaye nag bañ ñoo neenal ak fonk 7TV yi. dëgg la fonk ma man mi sa mag. wallaay tubaarikàlla macha allah xam ni nag télé bi. tubaarikàlla mooy télé bi ci kaw au top. man The King laa ko tuddee. 7TV The laa ko tuddee ndax tubaarikàlla ñi fi nekk ñépp ay. boroomi xel lañu boroomi xalaat. ba pare xereñ mën seen liggéey. macha allah maanaam looy dama bëgg ma tàggoo. Mhm. nga dugg acapella ndax tubaar tubaarkàlla dañuy seeti Mara sama doom. ndeysaan mu dem ci omoro mu baax mi. waaw waaw bàyyi soxna Canta. dëgg la rakki magi Ngoore Guèye. dëgg la tubaarkàlla Omar Omar Omar Guèye di ku baax. ku baax Omaro nit ku baax la. nitu valeur nitu valeur la nit ku yiw la. bëgg sama jëkkër waaye Mara ma ko seeti tamit tubaarikal la. yee kooku mooy sama góor fii rek lay topp toppul fenn. waaw waaw Mara bu baax mi nag macha allah. nii la ñuy tàggoog yéen ba déwén ak jàmm di leen wax ngeen ñaanal ñu yàlla jàmm kontaan nañ nag. tubaarikal la ñu ngi sant Penda waaye tubaarikal la macha allah ñu ngi sant Pape Maguette. tubaarikàlla macha allah waaye ñu ngi sant Pape Mendy ñu ngi sant Ousseynou ñoom laa àndaloon tey macha ñu ne ci régie lu ci rafet ñoom la waaye nee naa leen sànq maa ngi nuyu ku ñuy wax semu bari na émission yoo xam ne aji ngoy caali bu ko dee def semu mooy nekk ci gannaaw bañ ñu mën koo xool waaye caméraman bi Cheikh Saad bu lay doon waaye papi lay doon sama doom yooyu nga xam ne dañ maa bëggal seen bopp macha allah may tàggoowaat di wax ne sama borom kër bi maa ngi koy sant di ko ziyaar di ñaanal sama yaay di ñaanal sama papa di leen wax déwénati waaye nag di sant Ngore Gueye ñama yaasin penn càmm kulu yaasin penn càmm xaasim ak seen bu fare ci ngi caawoon maar sama taaw bu jigéen bi magi aram caam magi Seydouna Mohamed maa ngi lay ziyaara di nuyu nag Balla Caat sama caatum yaay mi macha allah di kontaan ci ñëpp nag di wax ne macha allah yàlla nañ ko fekkee déwén ñu fekk ko ay déwén yu baree baree bari te bu déwénee Fanta mbay ñu toggewaat ko nii tubaarikàlla macha allah di leen wax nag ba beneen lii lañ leen indi woon spécial ndewenal Fanta la looy tàggoo waa tubaarikàlla ngoy kontaanaat rek Mhm. di la wax ne suñu mag ji yow koo woo mu ñëw macha allah ndax yaa ngi bay sa waar boole ci dignité ak personnalité ak jom man jom rek laay toppee nii te sama mag ji mi ngi ci yow mhm. tubarkal la ngay géwél piir nag di saalis marqué sa empreinte ci Sénégal yal na la yàlla la fa jërëjëf maquillage bi nag ngooy ngoore géey la waaw macha allah yére bi tam nday awa la waaw tubaarikàlla borom keppaaru Cheikh Ibra gi ndeysaan Fanta tubaarikàlla looy tubaarikàlla waaw <laughs> yat ma daaro si ni caam ci yow lay ñëwaat hiiii man seeri caat yaa ma bëgg loole xadi caam yaa ma def nii sama rakk ji lay lay laayee man seeri caat réew mi xam na ko mu ngi ñuy seetaan lay lay la laa Fatima Gawlo ndeysaan madame Aydara madame Aydara Chérif sama waa ji le baana baana bi ci réew mi aka bari jom tangoo liggéey lay lay la laa ba beneen macha allah waaw ba beneen yoon tubaarikàlla ñu fekkewaat ko déwén jërë jëf